mais champion ci sa ginnaaw gis nga làmb ji ni mu demee roi des arènes bu bees ñëw na de. waaw Morlo ko champion la mérite na lu dul loolu. yee eh, ndax dugul liggéey boo ko gisee da nga xam ne liggéey na ko mais nag ki ko ko jox kooku dafa def lépp ñaaxaat ko. ama seen def na fi lu nekk ni dàq xool bëri laam man bu may nomee ki dàq bëri laam dama naan ama seen la. yaa ngi dégg mais ki nga xamante dafa gën a ubbi bëti xale yi muy Morlo. Mhm. gis nga ko yaramam. Mhm. gis nga ko gëm-gëm bi. kon mbër yëpp nañ bokk ndey bokk bàyyi te kenn ku ci nekk lu la yàlla may nga ñaanal ko sa morom mu yokku tu la wàññi dara da lay yokku rek dégg message moom moo nekk li nga xamante ne. combat bi xaaroon nga ko foofu. combat bi. ci dóor mu daanu bi xaaroon nga ko fa. waaw xaaroon naa ko foofu kay. ndax bëri dóor lañ wax. te Eumeu Sène dafa ñëwoon pour def Modou Lo lool dafa ñëwoon pour def Modou Lo noonu yaa ngi dégg. Mhm. Modou def ko li ko def. Modou Lo ak Balla Gaye bëri nañ gis nga ni ko Balla Gaye def. ok est ce que xaaroon na lool xaaroon ngeen lool yaa ngi dégg. Gris ak Balla Gaye bëriwuñu est ce que xaaroon ngeen lool xaaral woo leen lool ndax loolu yëpp day surprise làmb la mun nañ ñëw niil mun nañ ñëw ñu bëri ñu daanu gis nga Eumeu seen nan la def Balla Gaye. Eumeu Sène am nay temps boo xamante ne dañu naan la yow kii moo nekk ki nga xamante ne tax lan. lu muy def du leer la kon loolu la rek làmb dafa nekk loo xamante ne kii day def lii kii def lii waaw ñoom ñëpp ñoo ngi def li ñu war a def mais bu weesoo MMA bi bu bu jàllee bu combat septembre bi jàllee avance bu ñëwee nga jël ko. buñ ma joxoon avance sama combat bu jeexee nañ ma jox combat boo xam ne combat réel la rek <laughs> yow nga xool. combat réel la. combat bu métti laa bëgg. Sénégal. waaw yow man bàyyiwuma dara maa ngi fii maa ngi fii damay cuucap <laughs> bàyyiwuma dara merci beaucoup champion jaajëf merci. jaajëf ok.